bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashraf alanbiyai walmursalin sayidina mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ixwani fillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi nuyu ñëpp di yëkkati suñuy ziyaar di ko ci jëmee ci kilifa dëkk bi mawlaana cheikh man muntaqa xafidahullah wa raa di nuyu ay rakkam ak mbokki tam di jabaleel am nuyu tamit waa muqaddimatul xidma tawfiqi yore liggéey bu mag bii di liggéeyal sëriñ bi li gën a am solo muy jaamu yàlla li gën a amee solo muy jumaa yi sëriñ Tuubaa ji di leen sant bu baax a baax bunti ak tombi xam-xam yu am solo yi ñuy tànn di ko waxtaane ngir nit ñi jariñu ci waat bu baax a baax a baax ci koor gi ñu ko suñ daam waxee rek daral berndeel muy taxawe taxawaay am solo ci berndeel wu yeeg berndeel yaram bi tomb bii ñu tànn nag muy ak siyaasa lislaam nan la gisee wala lislaam ak ak siyaasa lislaam ak say mbooloo mi saytu bi nitu mbooloo mi ñu koy wax politique day tomb bu ama am solo bu yaatu lool tamit nag ndax faaw boo ciy waxtaanee da ngay xool li soxal ñañ ca waxal rek jukki ca loola wax ca waaye am na lu bari lu cay def muy tomb it bu am solo ndax yonente bi alei salatu salaam dafa ne ku yëpp yi mbooloo mi yitteelu bokkut ñun te fii ci Sénégal dañoo dem ba jàpp ne ngir ni ñu gisee tubaab bi daan ko doxee politique ak ñi mu yar ñu dem ba jàpp ne politique bokku ci diine politique bokku ci lu baax bokku ci jikko yu rafet jàpp ne mooy naxaate mooy war mooy fexe ba jot ci nguur mooy fexe ba téye ko ba dootu dugg génn ci sa loxo loolu nag sore naa lool ni lislaam jàppee ne loolu mooy politique wala mooy saytu yëpp mbooloo bi buñ ndax doxinu tubaab boobu ñoom ñu ngi sukkandiku rek ci seeni seeni tubaab ak seeni philosophe seeni xeltukat ni ñu jàppee politique mën nañ cee tudd ku mel ne Machiavelli ni mu wax ci amir muy prince da ngay xam ne gis-gis googu ci politique sori nag lool gis-gisu lislaam ndax moom ni muy jàppee politique mooy noo fexe ba jot ci nguur gi noo fexe ba téye ko ba du génn ci yow noo fexe tamit ku la bëgg ba bëgg nangu loolee nooy fexe ba ku jot ca nguur go nguur googu nga téye kon dafa mel ne ñoom ni ñu déggee politique rek mooy noo yilifee noo saytoo noo ngardaajoo mbir bi ba du génne ci sa loxoom kon dafa mel ne fan lu tasallut la dina doon wala aar du aar de bañ a wax ci sax baati tubaab yi mooy anam gi ñuy saytoo yëfi mbooloo yëfi dëkk bi wala dëkk bi wala mbooloo mi wala li ñëpp bokk doonatu ko waaye nooy jariñoo nooy téye li ñëpp bokk nga téyel ko sa bopp ba du génne ci sa loxo kon ñaari gisin woowu sore na lool kon ñoom ni ñuy firee ñoom tubaab bi boo tàmbalee ko ca grec ya ñoom amoon nañ déggin wu rafet ci politique ñu mel ne ki Platon muy Aflaton al Ilahi ni ko suuf yi di wooye suuf yi nit yàlla yu bari jàppee ko sax ne nit yàlla la woon am na ci Sustari ak Ibnu Ajiba bi muy firi laamiyatu Sustari wane neen Aflaton ab wali yu mag la woon nekkoon na bu zaman sax moom ci téeram bi tudd al jumhuriya ni muy définir politique mooy du soxe lool ni koy lislaam ak jullit yi di gisee mooy li ñëpp booloo bokk muy mbedd mi muy pénc mi mu ñuy fexe ba mu baax anam aaru saytu loolu loolu lay tuddee politique waaye nag bu ñu demee ci tubaab yu mujj yii mooy ku mel ne nakke day politique dafa mujj soppi ko ba doon fànnu gooy wala anam gi ngay fexe ba jot ci nguur ak anam gi nga koy téye ak anam gi ngay fexe ba bu génn sa loxo kon loolu dafa mel ne politique boobu ay fexe la rek ak naxaate taj bu dee nag ci lislaam ni mu jàppe politique moo gën a yaatu fopp ni ko tubaab yi gisee moo gën a ëpp njariñ ci mbooloo mi ngir ñu mën a xam ni ko lislaam gisee faaw ñu dellu ci doxiinu yonente bi alayhi salaatu wasalaam dellu ci yaxi lislaam yi muy texte yi laay yi ak xadiis yi door a mën a xam maanaam yi ak it baatu siyaasa ñi firi yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na yonent anbiya banu israil yàlla da leen a boole woon ak ay yonent ñu leen di saytu seeni mbir teg ko ci ni yàlla bëggee foofu li mu waxee kaan banu israel te suusuhum al ambiya ay yonent ñoo leen doon doxalal seen mbiri adduna seen mbiri mbiri mbiri mbiri mbooloo mi kon foofu dañuy gis ne yonent bi tasam baatu siyaasa la jëfandikoo ko waaye lislaam ni mu gisee siyaasa pour nga man koo xam da ngay xool baat yu baree baree bari yu lislaam bi ba baaxul jëfandikoo ci yëfi mbooloo bokk na ci sab raay kullukum raain kullukum masulun an raiyatihi dana jëfandikoo wilaayatul amri mooy yor yëfi mbooloo mi dana waxandiku sultaan saltana ak baat yooyu baat yooyu nag boo ko xoolee jàmbar ko liñ ciy gisee mooy définition wala dégg yi wi lislaam am ci politique moom mooy saytu li ñëpp bokk mooy kullu amalin yataallaq bi riayati l umma ni ko yonte bi alei salatu wasalam waxal man lam yahtam bi amri muslimin falaysa minhum mooy yonte bi nee na ku yëppi mbooloo mi yitteelul bokkoo ci ñun ñun jullit kon kuy loolu yitteel nag da ngay fexe loola jàkk li ñëpp bokk nga ci jéem a sàmm ak di fexe nu mu jage ak nu mu doxe loolu mooy yaa ngi ci li ñuy wax ak siyaasa yaa ngi ci politique ci dégginu islam kon li ñëpp bokk nag mën naa am lu aju ci seenu dund la mën naa am lu aju ci seenu wutiinu koom la mën naa am ci seenu yarin ak njàngale mën naa am nañuy doxale nguur ga fa nekk la mën naa am nañuy àttee nañuy doxale diggante nguur ga ak yeneen dëkkandoo mën naa am mbooloo mi buñ nekkee ci jàmm waaye buñ nekkee ci ay ba war a xeex ñu ko war a doxale ak yu bare bare bare yoo xam ne loolu lépp lu aju ci mbooloo ni ñuy dunde la am ñu war a jiite féete ñu war a yilib ak ñu yilib muy ak njaboot lu ñuy fexee nag ba mbooloo moomee seen mbir mépp jag ci wàllu yépp wàllu économie wàllu éducation wàllu nekkin wàllu yépp nu ñuy fexe ba loola jag ña yilib ak ña yilib loola ci mooy dégginu lislaam ci ci politique kon ci gàttal politique ci lislaam mooy saytu yëfi mbooloo mi waaye baatu politique ci lislaam gis nañ ne gën naa tax yaatu mbiru mbooloo mi rek ndax buñ demee ci Ghazali ak yenn falaasifa yi ku mel ni ki Raghib Asfahani ku mel ni ki Ibnu Masna Miskawayhi ni ñuy gisee politique wala ak siyaasa gën naa yaatu sax yëf yi mbooloo bi ndax ñoom dañ naan politique wala siyaasa ñeenti xeet la benn bi ci njëkk mooy nooy siyaasaa sa bakkan nooy saytoo sa mbiri bopp mooy nooy saytoo sa mbiri bopp say jikko nooy yare sa bakkan noo koy tàggatee ba mu mel na mu war a mel loolu siyaasatu naf si lañ koy tuddee xam nga kon foofu wutee nañ fi ak tubaab yi dañuy gisee siyaasa ndax tarbiya day dugg ci diggiinu lislaam bi day dugg ci siyaasa ndax yëfi mbooloo mi la ndax benn yi ñooy dugg ci mbooloo mi bokk ñëpp lépp bokk kon buñ defut kenn ki siyaasa ko defar ko ba mu jag mbooloo mi du mën a jag kon ñoom siyaasatu nafsi dañ koy wax dañuy wax siyaasatul ahli wal bayti mooy saytu sa njaboot saytu biir kër loolu xeetu siyaasa la dañuy wax ñoom it siyaasatul mujtama wala jamaa wal balad kon day tàmbulee ci nit ki defar sa bakkan jàll defar sa kër door a génn nag ñëw ci siyaasatul jamaa muy saytu mbiri mbooloo mi ak mbiri dëkk bi loolu boo demee ci mbind yi imam Ghazali lu mel ne ki misanul amal ak tibrul ak tibrul masbuuk ci nabiyantul muluk ak yeneen téere yu bari da nga gis ne noonu lay gisee ak siyaasa muy politique raxib asbahani ci azaria noonu la tamit la indee siyaasa ndax nee na li tax yàlla bind nit ñi ñetti mbir la moom raaxib alastaani ci zaria nee na ñetti nit moo tax ñetti mbir moo tax yàlla bind nit bi ci njëkk mooy al imaara mooy dundal suuf si bi ci topp mooy ibaada jaamu ko fi bi ci topp mooy al xilaafa mooy wuutu yàlla ci kaw suuf mu ne nag wuutu yàlla ci kaw suuf niñ koy amee mooy tustaxaqu an al qad taqaddama an al xilaafata tustaxaqu bi siyaasa wa dalika bi taxarri makaarimi shariati mu ne bu ñetteel boobu mu wax muy xilaafa wuutu yàlla ci kaw suuf lii tax nga mën koo def mooy ci niñ koy defee mooy ci siyaasa mooy saytu yëfi mbooloo mi te teg ko ci maandute te teg ko tamit ci li yàlla bëgg tëral ko ci sharia mooy mbaax ak njub bi yàlla wane nga fexe ba li ngay doxale suuf si li ngay doxale yëfi mbooloo mi li ngay doxale adduna bi relation internationale politique biir réew politique bitim réew lépp nga teg ko nga doxale ko ci li neex yàlla dëppoo njariñu mbindeef yi dëppoo njub nee na loolu ku ko def te na mu gën a rafetee na mu gën a maandoo àgg nga ci maqaamul xilaafa ma nga wut yow ci xulafaaw yi la mu ne nag loolu siyaasa googu nag darbaani ñaari xeet la ahaduhuma siyasatu linsani nafsahu wa badanahu wa ma yaxtassu bihi bi ci jiitu mooy nit ni muy saytoo boppam ak ni muy saytoo yaramam ni muy saytoo ay jikkoom ak li aju ci moom ci jëmi boppam boobu xeetu siyaasa la loolu ci weneen wax yi mooy li ñuy wax yar yar la ci wax ak tarbiya wa thani siyaasatu xayrihi nee na benn nga saytu say mbiri bopp wala nga saytu mbiri keneen saytu mbiri keneen min zawihi wa ahli baladihi moo xam sa njaboot la moo xam waa réew mi nga dëkkal ngay saytu seeni mbir mu ne boobu nag moo gën a jafe moo gën a metti te moo ëpp responsabilité fop moo tax mu ne wala yaslahu li siyaasati gayrihi man laa yaslahu li siyaasati nafsihi mu ne ku munta saytu sa mbiri bopp say jikko rafetut tarbiya wuñ la bañ defaru ba nga baax ba xam lu baax ba koy def waroo mën a jéem a xalaata jub naan da ngaa war a saytu yëf yi mbooloo mi nee na ku munta defar sa bopp ku munta saytu saytu sa bopp ku munta saytu sa bopp waroo jéem a saytu réew mi kon loolu yaakaar naa ne moom ni mu gisee politique mooy kon makaarimul axlaaq mooy ak fadail ndax da ngaa war a defar sa bopp ba noppi door a jàll door a defar da ngaa war a jagal sa bopp door a jagal mbooloo mi moo tax mu ne wa li hada damma allahu taala man tarashaha li siyasati gayrihi fa amara bilmaarufi wa naha an almunkar wa huwa gayru muhaddabin fi nafsihi mu ne looloo tax yàlla di ŋàññi kuy jéem a defar ñeneen di defar mbooloo mi te fekk yow say mbir baaxagul ba noppi moo tax boo demee ci alquran yàlla mi ngi wax naan ataamuruuna naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab mooy baadu da ngeen di jéem a digal nit ñi lu baax ba noppi di fàtte seen bopp kooku ñi ngi jéem a siyaasa keneen ba noppi di fàtte boppam yàlla wax na it ne wa qaala taala ya ayuha alladina amanu lima taquluuna ma la tafaaluun kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafaaluun raaxi ba tey nee na yàlla mi ngi ŋàññi kii jéem a defar ñeneen te mënut a defar boppam ni ko yàlla waxee ci alquran ne yéen ñi gëm lu tax ngeen di wax nit ñi lu tax ngeen di wax loo leen dul def nee na bàkkaar la bu réeréy fa yàlla ngay wax loo xam doo ko def di digal nit ñi lu baax te doo di digal nit ñi sangu te doo sangu mu ne it wa qaala taala ya ayuha alladina amanu alaykum wa anfusakum laa yadurrukum man dalla ida htadaytum muy yéen nit ñi maa ngi leen di dénk ngeen defar seen bopp fexe leen seen bopp jag boo leen jagee bu keneen melut na melit yéen boo leen jege rek loolu baax na mu ne moom raaxib raaxib di firikat alquran mag mu ne loolu ni ñu koy firee mooy ay xaddibuha qabla tarashuhi bi tahdibi xayrikum mooy yar leen seen bopp sellal leen ko dindi leen li bon di ci nekk lépp bala ngeen koo jub naan da ngeen di jéem a defar ñeneen raaxib du wax raaxib asfaani wax ne kon li tax ci politique ñuy sàkk ki koy def defar boppam ba noppi door defar kenn mooy defar keneen dafa mel takk ndeer la ci ki defaru takk ndeer na jëmm ja mel rek lay mel bu fekkee ne nag boroom jëmm daa daa daa daa jeng takk ndeer bu mu defee ba bu jeng kon kuy defar yëfi mbooloo mi te yow ju jëgoo na ngay defare yëfi mbooloo mi mooy da ngay defare sa bopp rek sa ñàkk jagadi googu ngay jëlaat yóbbu ko ca yëfi ñi ñëpp bokk lépp yàquwaat moo tax mu ne qaala taala ya ayuha alladina amanu la tattabiu xutuwaat alcheytan wa man yattabi xutuwaat alcheytan fa innahu yaamuru bilfaxshaayi wal munkar yàlla mi ngi digal nit ki ne leen bu leen topp yoonu seytaan ndax ku topp yoonu seytaane lu bon rek lu bon rek la lay digal ak lu ñaaw te képp fa xakama ala fa xakama annahu muxaalun an yakuna ma attibaai seytaan laa yaamuru illa i bil faxsaay wal munkar mu ne kuy topp seytaane moom lu bon rek ak lu ñaaw lay digal kon gis nañ ne ci lii raaxibul asfahaani yi indi ak al-Ghazali ne ñoom ni ñu déggee politique mooy ni ñu déggee jikko yi falsafa l'islam bi ñu am mooy te falsafatu tawxid la day bennale gis bi nga gis yàlla waaye maayir wala mawasir nattukaay yi ngay natt yi day doon lenn li ngay defare sa bakkan noonu ngay defare mbooloo li ngay defare sa bopp noonu ngay defare penc bi ñoom noonu lañ ko gisee buñ demee ci imam Ghazali ak raagul asfahani ñoom wax nañ ne am na ñeenti xeetu politique yu am muy bu ci njëkk mooy siyaasatul ambiya mooy politique bii yonent yi di doxal loolu mooy ñoom dañuy wan nit ñi irsaadul xalqi dañuy orienté nit ñi ca la mooy mbooloo mi liñ liñ bokk ñu wan leen ci doxin bi dëpp inna hada qurana yahdi lillati hiya aqwam ci côté yépp dala koy wax ci jikko di la ko wax ci pas-pas di la ko wax ci muamala li ngay jëflanteeg dundee bi di la ko jàngal ci ni ñuy doxale nguur ni ñuy doxale société yonent yi dañuy gindi nit ñi irsaadul xalq dañuy yare ñoom it dañuy wan nit ñi li leen di jagal tey ak li leen di jagal ëllëg kon seen politique politique yi yonte yi indi pour defar nit ñi ak yëbi nit ñi moo gën a yaatu bopp politique bi buur yi indi kon politique gu yonente la indi politique gu buur yi politique gu borom xam-xam yi politique gu waaraatekat yi am waa waaraatekat yi mu ne kon yonent yi doon la ñuy politique mooy vision la ñuy indil nit ñi wan leen li baax yar leen ci yëpp yar leen kon li ñuy def moo gën a yaatu wax na ne ñoom ñoom yonent yi siyaasa bi ñuy doxal day laal zaahir di laal baatin day laal sunu xol di laal sunu yaram kon moo gën a xóot bii nguur yi defar nee na yonent yi siyaasa bi ñu indi ala wa xukmuhum ala alxaasati wal amma ñoom dañuy doxal dañuy gouverner dañuy atte alxaasa mooy nit ñu nit ñu nit ñu nit ñu yilif ñoom ñoom la ñu toppaat amma ñi ñëpp yilifit ñoom maanaam buur yi dañ leen di topp li ñoo leen war a topp ak njaboot gi te seen atte it day laal zahir tamit wa fi zahirin wa batini ñoom dañuy atte nit ñi ci seen zahir di atte nit ñi ci seen batin kon ñoo gën a matale ñoo gën a yaatule ñoo gën a baaxe bi ci topp mooy siyaasatul xulafaa wal wulaat wa salaatin mooy doxin wala saytu wala politique bi nga xamee ne buur yi ñoo ko war a def ak ñi yàlla dénk nguur ak fal ñooñu nag la wax nee na bokku ñoog yonent yi dañuy defe politique siyaasa ñu fàttali ko ne siyaasa bu ñu ko waxee ci nag mooy defar rek li ñuy defaree li gis bokk kon ñoom seen atte ñoom buur yi ak ñi yoru fal alal xaasati wal amma ñépp la ñuy gouverner buur yi ñëpp li ñuy mooy xaasa ni ñu ko mën a waxee mooy xaasa la ñuy doxal ak amal ñëpp la ñuy àtte waaye ñoom li ñu wuteeg yonent yi lakin ala zahirihim la ala batinihim ñoom seenu àtte du laal xol nit ñi buñ la yonent bu la waxee bëgg yàlla boo bëggul yàlla dinaa fex dina dinaa fex nga kon àtte bi day laal sa xol ñoom bu dee buur nag defal lala man bu la neexee nga def boo defut mu duma la wala mu tëj la waaye bëgg loola mënu koo dugg sa xol moom bu dee ab yonente nag daa mën a dugg sa xol lim lay wax wa thalith mooy al ulama wal fukama mooy borom xam-xam yu mag yi ak fukamaa yi mooy philosophe yi ñu ñu am xikma yi ñooñu wa xukmum ala batini al xawaat ñooñu li ñuy def lu kawe la lool waaye moo gën a néew fu muy àgg ndax ñoom ruu yi rek la ñuy defar ñoom ruu yi rek la ñuy defar mooy yar nit defar ko ba mat ba doon nit ku jag ci société bi lu muy def doon lu baax lu baax rek a jóge ci moom kon ñooñu ñu néew la ñuy defar li ci def nag mooy al waaz wal fuqaha mooy waaraatekat yi ak fuqahaaw yi juriste yi ñooñu nee na wa xukmuhum ala batini al amma faqat ñooñu ñii al fuqama batinu al xawaat la ñii waaraate ba batinu al amma mooy di xoli mbooloo mi waaye ñoom amuñu pal ku tax ñu mën a gouverner zaahiru nit ñi duñ la digal dañ lay wax rek bu la neexee nga def bu la neexee bàyyi lu baax lañ lay wan waaye nag duñ dal ci gar bu dee nag nguur ku am fal moom dalay gar boo bañee kon ñeenti doxin yooyu wala siyaasa yooyu moo am mu ne nag moom imam Ghazali mu ne fa ashrafu hadihi siyaasaat al arbaa baada nubuwa ay faadatul ilm mu ne ñeenti xeeti politique doxin bii doxalin yi fi mbooloo mi wala defar yi fi mbooloo mi bi ci gën mooy yi yonente yi indi ndax ñooñu dañuy defar sax zaahir defar sa baatin dañuy defar sa xol defar tamit sa doxin sa nekkin ci ak société bi ndax ay loi la ñuy indi ay charia yoo xamee ne day wax ni dagan ak li araam li nga sañ a def ak li wu sañ ta def loolu buñ ci tënkoo mu defar te nguur bu ko jëlit appliqué ko defar ci ab société ña ca topp mooy buur yi waaye imam Ghazali nee na booy xool gannaaw yonente yi politique ñiy def politique di jagal mbooloo mi gannaaw yonente yi ñi ci gën mooy li awliyaaw yi ak xukamaaw yi ak borom xam-xam yu mag yi def ndax ñooñu dañuy defar xoli nit ñi ba nit ki soxlawut ab policier di ko taxawloo wala dara waaye la koy defar mooy xolam la koy tee def lu bon mooy li ñu ko jàngal ci lu baax xalaatut ku ko contrôler kon mu ne ñooñu seen politique politique bi gën a kawe la sëñ Tuubaa nag ban ci doxin yii muy ñeenti politique yi la doon doxal ndax dafa jël ndax bu yonent yi wala bu wala al xukama wala bu salaatin wala bu bu aas yi buñ demee ci sëñ Mouhamadou Bachir ci min albaaxi xadim nee na sëriñ Tuubaa xuliqa radiyallahu taala anhu li yasuusa albasariya bi siyaasati rasuli rabbihim sallallahu alayhi wa sallam wa saxara lahu alawaalim fasaawaathu wa wadaa lahu alqabul baada an nuudiya lahu bilhubbi fi sama mu ne sëriñ Tuubaa nii yonent yi daan doxale siyaasa boobu lay doxale nee na yàlla du ko bind moom sëriñ Tuubaa ngir li yasuusal bashariya siyaasa ko baat baat boobu la jëfandikoo mu gouverner mu saytu mbindeef yépp la wax doxal leen ci ni yonent yi daan doxale siyaasatul rasul ci doxeel doxaliinu politique gu yonente bi alayhi salatu wasalaam mu doxal leen ci yàlla tàggatal ko adduna bépp ñu nangul ko gannaaw bi ko yàlla wootee ca asamaan ya ne kii bëgg naa ko na ko ñëpp bëgg moo tax bi mu wootee taalibe yi wuyu si ko nangu da leen a tegal fa yonente bi daan yonente yi daan sia jaarale ci seen njaboot ci defar leen ci yar leen ci teg leen ci siraatul mustaqim loolu kon sëñ Tuba siyaasatul anbiya ndax mooy al ulama warasatul anbiya sëñ Basiru it ñi ngi waxaat ni sëñ Tuba daan doxale siyaasaam mu ne unzur ila hada al fihli hal yuwaffaqu li mislihi man lam yatahayya لسياسة البرية ظاهرا وباطنا كالأنبياء عليه السلام عليه الصلاة والسلام وخواص خواص الأولياء المقربين وهذا المقام بدايته فإلى أين نهايته إلى الله ورسوله بلا واسطة ولا إمداد خلقه وإن إلى ربك المنتهى mu ne sëñ Tuubaa bu xool ni mu daan defee xam ne yàlla da koo bind ngir mu doxal mu siyaasa mbindeef yi mu gouverner mbindeef yi mu saytu mbiri mbooloo mi ci zaahir kon mooy li Ghazali waxoon ne ñi yonent yi dañuy doxal zaahir ak baatinu nit ñi kon mu ne mu siyaasatu mbiri mbindeef yi ci seen zaahir ci se ak ci seen baatin ni ko yonent yi doon defee ni ko yonent yi daan defee ak xawaasul awliya xawaasu xawaasul awliya yon ak yonent yi ak wàll yu yi gën a jege yàlla ni ñu daan doxale waaye ndax sëriñ Tuubaa daana def siyaasatul muluuk wa salaatin loolu sëñ Mouhamed Labib Diop daga ko jàng taarix am xam ne doxewut noonu gis nañ sax ne dafa xawoon a moytu lool siyaasatul muluk yooyu xawoon ko bañ ku gis xaaloo di yarkan ak digganteem ak fatwa ba mu defoon ca Samba Sadio ak la doxoon digganteem ak la Joor ak la doxoon digganteem ak Teeñ Tanoor ci lettre bi ci lettre bi mbakk bi tey dañuy ko gis da ngay gis ne sëriñ bi siyaasa nguur moom néexu ko woon dafa mel ne waaye du nguur moo ko soob wala nguur la bëggul waaye doxiinu nguur gu jeng nu ko waxee ila fa kayfa ila jiwaari man duuruhum rawdu shayatin aw kayfa yarkanu ni xubbul xubaami ila jiwaari man duuruhum rawdu sala rawdu shayatin mooy buur yañ xamoon nañ daan doxale ci noggutu ci yàq ñàkk maandu te moom mission mooy defar day mel ne ñaar ñooñu mënuñu ànd kuy defar ak kuy yàq mënuñu ànd koo xamee ne yow sa mission mooy rahmatul muqdar yërëm mindee bi doon du jëm sans salam teg leen ci siraatal mustaqim fexe ñu jëm kanam xidmaal leen gindi leen ak ci koo xam ne lii gis gisam mooy suxra tasxiir mindeeti noggatu leen jël seen alal tooñ injustice loolu dafa mel ne mooy ñaari naqiir ñaari safaan yu mu daan weex ak ñuul mënuñu ànd mënoo weex ci benn waxtu wi nga ñuul mënoo tedd ba noppi tàng mënoo baax bon kon du ne Sëriñ Tuubaa dafa bañoon siyaasatul muluk siyaasatul muluk bu ci dëppoog sharia di jariñ mindeef yi di teg nit ñi ci siraatal mustaqim di leen yokk di leen aar ni ko sëñ Mbàkke bi ko waxee ca leetar ba mu bind ngalalu lam ko ca dénk kon loolu mooy siyaasa bu baax buy defar nit bu jëmee nit kanam tanmiyatul doomu aadama jëmee nit kanam aar ko loolu taxoon ko Sëñ Tuubaa àndut ak siyaasatul muluk gisuñu mu maarata ko daawu ko doxe te it buur waaye bi mu jëloon mooy siyaasatul anbiya mooy defar doomu aadama mooy defar société defar xol yi defar ruu yi noonu la ko sëñ Basiir leeral moo tax sëñ Lamine Diop Dagana ci irwaan Madina Nadim nee na boo xoolee sëñ Tuubaa bi mu demee ba toog njaareen ba dal ba lépp ñëw dafa mel ne boo koy xool day mel ne nguur ndax nee na taxayaatu chef bi njaarim lam yajta lam yajtama lam yajtama fima balaxana min kutubu tawaarix wal xikaayaat i xayaati ahadi séeri ku mënil masaarix masaayix fi sharia fi xaqi fi sharia wal xaqiqa nee na sëriñ bi boo xoolee ni mu nekkoon njaarim lépp jag lépp tegu yoon day mel ne musuñoo gis taxawalee lu mel noonu ci histoire l'islam mu ne lenn rek ngay gis ne amutoon ci sëriñ bi ci jamono njaariñ mooy li buur war a taxawal moo koy taxawal mooy di def di àtte di wéyal yoon iqaamatul xuduud mel ne li sharia wax ñu koy appliqué ci yooyu nee na loolu moom defu ko li tax ndax du nguur du nguur ndax nee na booba jëm bii nekk bi sababi xilaafi qaanuuni alxukumati fiiha fa huwa fiiha macdurun wa sayru kummali lmuluki fi fununi siyaasat fi funun asiyaasat mu ne booba sëñ bi am na ngantu taxawal loolu ndax yur du nguur te nguur gi fi nekk dafa amoon luwaay yu ñu indi ñu dàqonteeg loola te gaa yu baax yi niñ baaxoo doxe lu ne nam gën a rek nam gën a rafet nañ lañ ci doxe kon ñu tënk mooy Sëriñ Tuubaa moom ni mu déggee woon siyaasa kon moo gën a yaatu ni ko nit di nguur yi nit di nit di tubaab yi déggee ndax leeraloon nañu ci tubaab yi ni njàppee nguur rek mooy li ñëpp bokk noo ko notee noo ko saytoo noo ko yore noo ko noo ko ngardaajoo kay waaye suñ tubaab yi mu déggee mooy siyaasa mooy defar mooy defar defar nit defar kenn defar kër ba defar mbooloo kon jàpp nañ ne ñaari wute nañ kii jàppee ne yëfi mbooloo mi rek la kii jàppee ne moom kenn sax defar ko defar la defar kër defar la defar penc door a ñëw kon dafa mel ne ki jàppee ne defar penc dong la wala moom penc moom sax jàppewul defar penc dafa ne moom penc moom tubaab bi dafa ne moom penc bi ñu nit ko mooy siyaasa kii ne déedéet man defar defar penc defar kenn defar li ñëpp bopp ak defar li li li nga moom kon koo ko gën a yaatu ni mu déggee ci yaatu buñ demee tamit ci ay mbindëp dañuy gis muy jëfandikoo baat siyaasa ci masaali ko jinaan ba siyaasatu ma siyaasati mu ko waxee sax te bayit wa siyaasatu natiyan noonu la ko waxee sëñ Tuubaa ni mu indee ci politique mooy kon defar googu boo demee ci masaaliku jinaan indi na nu mu wax buntu fil xal mu wax nit wala siyaasatul anbiya lil xalq nan nga war a jëflanteeg ñu ndéegi ba defar leen bañ dak sa yëkkal mu ne wa minhu saahi nnaasa fartahi lhimam bil xawfi wattamai anhum tuxtaram laa tastaki lxaajaata lil xalaayiqi bal istaqir ila alxalil xaaliqi waarid waaridanna anhum lada lada lada al idbaari wa aksihi waqna bi ilmi lbaari wandur bi aynayni ilayhim abada ayni lshariati li amrin bilhuda wannahyi aydan an jamihi lmunkari maa iqamati alxududi washkuri ihsanahum ihsanahum in ahsanu wa ayni xaqiqatin bilcudri inda shayni wax na ba agsi ci ne na ngay jëflanteeg ñoom ma siyaasati nasihat ñii mu indi nee na noonu lañu war a jëflanteeg nit ni ñuy defare ci masaalik indi na bunt bu ñuy defare bakkat noppi indi ni ñuy defare mbooloo mi ñi ngay jëflanteeg mbooloo mi bañ jag mooy jëflanteeg ñoom ci siyaasatu nasiha di leen laa di leen yërëm leen am sabaxa ci ñoom bañ leen a iñaane rafet jikko ci ñoom zaahir ak baatin ba noppi bàyyi leen ak yàlla di ihsaan ci ñoom rafetal ka xol ci ñoom yéene leen aw yiw am amaana ci ñoom buñ la loree nga muñ ko ah ba noppi yëkkati sa gët ci ñoom buñ la yitteel bu leen yaakaar bu leen xemmem bu leen soxlaal dara waaye soxlaal sa borom buñ la dikkalee buñ la dëddoo nga muñ ko buñ la dikkalee nga delloo leen ci yàlla bu leen xool ñaari bët bëtu sharia ak bëtu xaqiqa bëtu sharia mooy di leen digal lu baax di leen tere lu bon di tegal ci ñoom atte yi yàlla atte ci ñoom buñ defee lu baax nga sant leen buñ defee lu bon nga jéggal leen ak it di leen xool tamit bëtub xaqiqa te xam ne ñoom jëfuñu waaye yàllaay jëf ci ñoom buñ juumee nga baal leen buñ la xañee nga yërëm leen buñ la tooñee nga jéggal leen te xam ne ñoom jëfuñu la waaye yàllaa lay defal bu leen lor loo man ci jariñ leen nga jariñ leen ko seeni àq nga leen koy jox di muñ seeni tiis ak seeni ay di leen dox ak ñoom ci laabire ila axiri li mu wax nii booy xool mooy principe politique ni ñuy war a jëflante doomu aadama mooy yéene ko lu baax te di ko dawal lu bon lépp lu koy jariñ nga teg ko ca lépp lu koy mooy lu koy lu koy lor nga fexe ba du ak ci moom mooy siyaasat daxi wal lépp lu koy jariñ daf kon darar wa jal bu napp ci nag ci domaine bu ne bu dee ca nguur ga bu dee ca yar ba bu dee ca lépp rek boo ca doxalee noonu am nga doxin bu baax ci politique boo xamee ne incha allah yëfi mbooloo mi danañ jàkk kon loolu mooy gis-gisu siyaasa noonu la ko borom xam-xam yi gisee ci lislaam noonu la ko Sëñ Tuubaa tamit gisee mooy mbooloo mi nañ war a jëflanteeg ñoom ñu ñëw nag ci siyaasa lan mooy atteem ci sharia ku ne xam ne lislaam dafa séddale jëfi nit yi atte yi ci ay furudul kifaaya ak furudul ayn ay warteef yoo xamee ne kenn ku ne la war ak warteef yoo xamee ne mbooloo mi la war waaye bu dee politique mooy saytu yëfi mbooloo mi dafa bokk ci furudul kifaaya yi la ko lislaam dugal nga xam ne bu ko ñëpp bu defee bu ko kenn defee mu wàcc ñëpp bu ko kenn defut ñëpp àndandoo yanu bàkkaar ba yooyu nag lislaam indi na ci yu bare bari mooy lépp loo xamee ne suñ ci téere sëñ Suhaybu indi na ca julli néew suul ko tàng ko yooyu yëpp buñ ko bàyyi woon tey kon suuf si ba yàqu lépp loo xamee ne buñ ko buñ ko defut ñëpp a yàqule loola day doon fardu kifaaya politique ci loolu dugg boo demee ci xalil bi muy limi furudul kifaaya ci buntu jihaad dafa ne jihaad al jihaadu fi ahammi jihatin kulla sanatin wa in xaafa muhaariban te siyaaratil kaabati fardu kifaaya ba mu indee fardu kifaaya nag mu indaale ci ne wa kal qiyaami bi ulumi sharci wal fatwa wa dafni darari an almuslimin wal qadaai والشهادة والإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحرة المهمة ورد السلام وتجهيز الميت وفك الأسير mu ne yii yëpp ay mbir la yoo xamee ne bu ñu ko bàyyee société bi yàqu bokk na ci politique bokk na ci jihaad bokk na ci dundal xam-xam ay chercheur ay gëstukat di am di yokk xam-xam fatwa di jàngale di wan nit ñi li ñu xamul ci diine jihaad mooy dafon dara an muslimin aar nit ñi police taxawal police qada taxawal justice yoon am ñuy àtte nit ñi ndax loolu lépp boo mu société bi yàqu shahada mooy di dem tribunal am yoon wu ñuy teg ba indi dëgg imaama mooy ku jiite jullit yi ak ku jiite nit ñi seen mbiri àdduna abru bil maaruf wa nahy anil munkar di digal nit ñu baax di tere lu bon ak fexe loolu du fi am lu bon du fi am ak métier métier yëpp buñ ko amut société bi ab dëkk boobu benn docteur ñoom ñëpp am nañ bàkkaar am réew réew mu amut ay maçon réew mu amut ay wuure réew mu amut ay ay ay ay ay ay ay ay tawkat ak mboolem métier bu ko loolu di tax mooy ab société mënta am te loolu amut buñ ko ñàkkee rek ñu ñëppay loru waaye duñu am ci loru waaye dañ ci am bàkkaar kon lii fii la lislaam duggal politique fii nga xamee ne buñ ko ñàkkee société bépp ay yàq bu kenn moo tax yonent sallallahu alayhi wax ne man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum ku yitteewul mbiri jullit yow bokkut ndax buñ ba bu ñëpp bàyyee ñëpp yàq kon moo tax politique ak saytu yi fi mbooloo mi fexe ba mbaax ba lépp bak soobu fexe réew mi am développement jëm kanam loolu farata la farata la ci produit kifaaya yi nga xam ne buñ ko bàyyee ñëpp a yem bàkkaar yonent bi alei salam wax ne ne li ma ko waxee léegi man lam yaxtab bi abri muslimina fa laysa minhum kon nag noonu mu nekkee farata farul kifaaya boo koy def nag war naa am lu tax nga koy def yan sëñ bi baa wax na sax booy jàng xam-xam daa am lu tax lu tax lu la war a motiver mooy wa taqsidu arbaatan inda dalaal inda inda sida taadum indi kay tafudu bi ola mais booy jàng xam-xam ne lii tax lii ak lii ak lii tax politique tamit ci lislaam boo koy def daa am lu war a tax njëriñu mbindeef yi taxawal dëgg ci kaw suuf taxawal justice muy maandute indi mbaax ak yiw ak jëm kanam ci kaw suuf adaul amaana ila axiri ñu tudd ñu tudd ko benn par benn kon li ci jiitu mooy politique ki koy def daa war a jàppe ko ne ak jaamu yàlla la farata la ci furudul kifaaya mooy njariñ la loo xamee ne bëgg ñëpp bàyyee adduna bi yàqu nga ne kon naa ci dugg ngir liggéeyal yàlla kon bokk na ci li war a tax nit ki politique wurda doon am lu mu gañe am ak pal wala unité mindee bi wala doon ministre wala dara loolu boo ko defee rek amadoo ixlaas waaye damaa bañ ummatu muhammad alayhi salatu wasalaam ñu yàqu wala réew mi yàqu li li li ñëpp bokk bu yàqu te mën naa koo jagal naa ci dugg liggéeyal fi yàlla liggéeyal fi mindee fi jaam fi yàlla kooku moo war a doon première sa yéene muy ixlaas niyya bokk it daa war a tax boo koy def liñ ci war a njëkk a jiitu it mooy iqaamatul xaq tey mooy dëgg am ci kaw suuf ndax yàlla dafa ne wa maa xalaqna samaawaati wal arda wa maa baynahuma illa bil xaq fa inna saata laatiyatun fastahi safhan jamil te waxaat ne wa maa xalaqna samaawaati wal arda wa maa baynahumaa laa'ibiin maa xalaqnaahumaa illaa bil xaq asamaan ak suuf ak lépp li ma bind li tax ma bind ko mooy dëgg am kon lépp lu ci jaam bi def dëggug yàlla kooku feeñ moo war a tax kon booy politique na sa yéene doon taxawal dëggug yàlla googu fexe ba dëggug yàlla googu am ci kaw suuf li mu tëral ci lu baax nga fexe boo accès nga appliqué ko li mu tëral nee nañ ko moytu ci lu bon nga fexe ba boo accès nga moytu ko ba loolu du fa am kon loolu moo war a nekk sa yéene bi ci des mooy iqaamatul adli nga fexe ba maandute am ci kaw suuf ndax yàlla dafa wax ci alquran ne laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna maahumul kitaaba wal mizaan yaqumu naasa bil qist li tax ma wàcce ci yonent yi jox leen téere yi jox leen kiimaan yu mag yeeg yi ñu def yépp lenn waralu ko lu dul rek nit dund ci bil xiste mooy justice ci jub ci maandute kon kuy politique fexe ba li tax yàlla wàcce fi yonente yi wàcce fi téere yi loolu rek moo tax yooyu nga politique mooy taxaw ci dëgg lépp boo demee ba ba ba yàlla teg la fa it ngay jéem a doxal al adlu googu lépp luy tax adlu am nga cay xëy di ca dox lépp luy yàq adlu boobu nga koy moytu saw doxin say waxin say jëfin yonente bi alei salaam wax na ne inna min aadami aljihad kalimatu adlin inda sultaanin jaayir bokk na ci jihaad bi gën a mag mooy wax baatu dëgg ci buur bu jeng kon loolu mooy wane solo si amal dëgg am ndax mu jihaad da ko yoon kankalam yamale gannaaw boo fexee ba dëgg am maandu fay am ci kaw suuf nga fexe it li tax ngay def ji politique mooy wasaare aw yiw ci kaw suuf fexe ba al ihsan matale kaw suuf ndax loolu tax yàlla indi ci nguur yëpp yàlla nee na inna allaha yaamuru bil adli wal ihsan wa itaay dil qurba wa yanhaye an il fahshaai wal munkari wal bagyi yaidukum laallakum tadakkarun kon loolu dafa war a nekk raaya jubluwaay boo xamee ne képp kuy dugg ci politique loolu moo war a fexe sa yitte fexe ba adlu muy maandu tey am ci kaw suuf al ihsaan la gën la gën a rafet la gën a baax am ci kaw suuf fexe ba mbokk yi mën a am la gën a baax ak fexe ba lu bon du am ci kaw suuf lu ñaaw du fi am ndewte du fi am loolu it kuy politique loolu war naa bokk ci ay naqaate di tax ngay bokk na ci adaawul amaana yàlla dañoo dénk suuf si ñu war koo defar war ko fay jaamu jaamu ko rafet taxawal fi dëgg taxawal fi njub ba tax ba mu ko waxee malaaka yi ak asamaan yeeg suuf yi yépp dañoo ragal ndax amaana dafa diis na arna al amaanata ala samawati wal ardi wal jibaali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insaan innahu kaana zaluman jahula mindef yépp ragal ne duñ yanu amaana boobu nit ne dana ko yanu kon booy dugg ci politique na sa yéene doon amaana boobu nga nga mottali ko yàlla wax na ci alxuraan ne inna laa yaamurukum an tawaddul amaanaati ila ahliha yàlla mi ngeen digal kóllëre yi ngeen koy yelloo ngeen koy jox ña ko yelloo wa idaa axadtum bayna naasi an tahkumu bil adli boo leen di atte ngeen atte ci maandute bokk na ci li tax nit ki war a def politique di ko war a motiver di ko war a tax a dugg ci politique mooy xeex injustice xeex yàq ak man hul udwaani wal fasaadi wal ifsaadi fil ard yàlla dafa wax ci alquran ne ud'u rabbakum tadarruan wa xufyatan innahu la yuhibbu almu'tadin wala tufsidu fi l-ardi ba'da islahiha fad'uuhu xawfan wa tamaa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin yàlla nee na déleen ma ñaan lam ci teg mooy man yàlla de bëgguma ñiy jalgate ñiy tooñ ñiy yàq suuf si ne leen rikk kon bu leen yàq suuf si gannaaw buñ ko defaree ba noppi kon loolu maqsad la ci maqasid yi gën a mag ci ñi yàlla tax ñu indi ñu fi fexe ba yàq du fi am fexe ba jalgati du am kon kuy dugg ci politique loolu daa war a doon yitteem tamit jële fi corruption jële fi yàq jële fi lépp luy ak tooñaange loolu yàlla wax ne falawla kaana min alquruni min qablikum ulu baqiyatin yanhawna an ilfasadi fi lardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattabaa alladina zalamu ma utrifuu fihi wa kanu mujrimin wa ma kaana rabbuka liyahlika alqura bi zulmin wa ahluha muslihun mu ne ak a neexoon xeet yi fi jiitu woon ba yàlla alag leen ak a neexoon ñu am ci ñoom ñu am xel di leen tere lu bon di leen digal lu baax loolu bu amoon kon yaakaar naa ne mbugal yo leen dal du leen dal mu ne yàlla bu fekkoon ne ñi fi jiitu maa kaana rabbuka liyahlika al-quraa bi zulmin bu fekkoon ne xeet yi fi jiitu ña fa nekk ñi ngi doon jéem a defar kon yàlla du leen bëggal ngir tooñaange yi def ndax tooñ buñ tooñ defarkat yi ñëw yi defaraat ko kon dafa war a bokk ci yittey jullit buy dugg ci politique li ko war a yittir mooy fexe ba kon islaax googu mu taxawee ko ci waaye ifsaat mu yàq mu fexe ba bokk ci li muy li ko tax a dugg ci politique mooy dindi fi ak tooñaange dindi fi ak jubati dindi fi ak yàq yàlla wax ci alquran ne fabtaxi fi ma ataka allahu daar alaaxirata وأحسنت نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين والله يحب تي فساد ak iftaat fil ardi lay wax kon wane ne lu bon la lu jara moytu la kon boo xasee bay dugg ci koy digit fexe di ko moytu ak fexe di ko fi jëlee bokk na ci li tax nga war a def politique mooy al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar ndax yàlla moo wax ci alquran mooy déglu lu baax ak tere tere lu bon fexe lu baax am ci kaw suuf lu bon jugee ci jëm kanam am fi lu mébét lépp nga bokk ci ñi ko ci taxawal yàlla wax ci alquran wal takun minkum ummatun yad'una ila alxayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar wa ulaika humul muflihun nee na waxtu wu ne na am ci xeet wi na ngeen doon yéen jullit yi sax xeet wi nga xamee ne dañuy digle lu baax tey tere lu bon nee na ñooñu day ñiy def loolu da ñooñu ñooy ñiy nar a texe kon booy dugg ci politique na doon loolu sa sa yéene yow jullit bi fexe ba amal fa lu baax dindee fa lu bon bokk na ci li la war a tax a motiver li la war a tax a dugg ci politique mooy imaaratul ardi ndax yàlla wax ne wa ansaakum min al ardi wastamarakum fiha yàlla moo ñu bëgg ñu dundal suuf si développé ko suqali ko mu jëm kanam ci tubaab yi àgg bépp ci imaaratul ardi la ñun jullit di war nañ ko weesu defar ay satellite yi dem ca weer ak def lu ñu wax rek lu tubaab def rek jullit da ko moom waaw nu ko laay waxee ca suuratul Araf qul hiya lilladina amanu fil hayati dunya xaalisatun yawmal qiyama pour yéen di jàmm na fil xayaati dunya ñoo ko mu ci àdduna bii alaxira nag xaalisatun yawma qiyama bokkuñu ko kenn borom kon lépp la gën tubaab moomu ko ñoo ko moom kon ñun jullit yi dañoo war a dugg ci politique ngir fexe imaaratul ardi googu defar suuf si ba mu baax ba gën li fi tubaab yi kon ndax yàlla wax ne su ma jànlee ko xalaat fil ardi li nam du la kayfa taalamoon dama leen koy wutal ngir xool nan ngeen doxale loo leen koy dundale dundal ko ci mbaax ci sharia ci li yàlla bëgg ci ay valeur wala dañ koy dundal ci rek ni nit di doxe muy yàq ak nopp na mu doxe bi ma nopp sa ku ma morom bi ku man sa morom dóor tubaab yi développé imaaratul ardi def nañ ko développé nañ ko ba mu àgg fa mu gën a baax waaye lépp ci alal jàmbur lañ jëm fekk nit ñi def leen ay jaam not seeni réew def leen coloniser leen defi guerre forcé mbell nit ñi ak seen ressources naturelles nga jël ko def la sa réew loolu imaara googu du bokk bi imaara bil sàmba bi sàmba bi imaaratul ardi mooy dundal ko ci nam gën a waaye nag ci nam gën a tegoo sharia nam dura kay fa taalamuuna boobu kay fa taamaluun kon yooyu ay maqasid la yoo xamee ne bépp jullit buy def politique loolu moo war a bokk ci li li li tax nga war def politique mooy fexe ba la gën am fexe ba la bon du fi am bu loolu jàllee yow jullit buy def politique nag am na lu lislaam di xaar ci yow noo aw defiin aw doxin muy dawaabit yoo war a tënk bi ci njëkk mooy ixlaas waxoon nañ ko bi ci des ku ko mënut bu ci dugg ndax léegi bi ñuy wax siyaasatul anbiya siyaasatul muluk siyaasatul xulafa al muluk ak siyaasatul ulama ak waxaas gis nañ ne indil nañu ay majaalaat yu bare bare bare du caa gi ne rek nguur ak yirib mooy mooy politique islam ku mëne wut fii demal ci bonet yeneen ni fa nga mëne ku munta doxal nguur demal di yare yaa ngi politique politique yonent yi wala politique awliya yi ku munta gouverner demal di defar muy politique développement di suqali da doon en entrepreneur da doon ab baana baana da doon ab yaxantukat da doon ab laqatcikat ngir lépp baax am na ñoo xamee ne nag mënewuñ ci unit ak yor nguur ndax seenu doyri abu zar radiallahu taala an ab saxaaba la yonte bee ko defal te yaakaar naa nee nañ yon na ko ku yonte bi nee na amut suuf si ku muy kuy dox ci kaw suuf ku gën a diggu abu zar kooku kon amut ku muy yemal ci nit ñi te ñëw na ci yenn sens ne ko fal ma dama bëggoon nga fal mu ne ko yow kat da ngaa doyati te li ma bëggal sama bopp laa la bëggal damay bañ nga def ci loo lu dul noonu ndax yow amoo dëgër kooku ne ko yëmu ci ne ko yow maa ngi lay dénk moytul del moytoo jiite ak di moytoo yor alali jàmbur kooku li muy baax baax te Abu Dar ku ne xam ne ne ci dëddu ak àggoon nañ sax ba dëddu ne sax ñuy wax naan communisme ci ñi ko jëkk indi la mooy alal alal yi alal yi ñinde ci bokk bokk kenn moomu dara yëpp moom lépp yan kan tam ne ko mënoo yiidi mënoo yi mënoo doxal kon loolu lu garaaw la kon al quwa wal amaana charte la ci gis nañ Seydina Yuusuf ba muy yor nguur ba ba fa ci namaati ji lañ ko doon indi dafa ne ij'alni ala xazaa'ini al ardi inni xafidun alim jox ma ma yor magasin yi réew mi ma yor trésor public yor lépp ci nguur gi ndax man am naa compétence bi wóor naa te am naa xam-xam bi kooku da koo man waaye Abu Dar ba mu laajee yoon saa sax daf na ko bàyyi kon yow miy dugg ci politique wala politique mbooloo bi bokk sax ñu ngi bàyyi nga bàyyi xel ne dawaa bi yi lislaam tegal da nga am kuwa kuwatu caractère ci jikko aw doxin ak amaana ba mën koo gàtt gis nañ Seydina Moussa ba muy wax si kii dafa ne inna xayra man istajata al qawiyul amin ku dëgër te wóor mooy mën a yotte gis nañ ci fiq bu ñuy jàng fiq bu ñuy jàng buntu qada ak buntu kii wilaa wilaaya dañuy wax ne ahlul qada adlun zakarun fatinun mujtahidun yooyu yëpp ngir bëgg nit ki nuñ ko préparé ba mën a doxal nuñ ko dénk ci nam gën a rafet salaaxiya xam naa jege nag li ñu doon wax léegi sax mooy li nga nga am compétence yu yor ko yoon saa salam nee na man waliya min amri muslimina shay'an fa walla rajulan wa yajidu man huwa aslahu minhu lil muslimin faqad kaana allaha wa rasulahu wal muminin nee na ku yàlla def sa loxo mbiri jullit yi nga yilif leen ba noppi ngay fal fekk bi ngay fal am nga ku gën a am ko compétence ku gën a man li ngay fal nga jox ko nga nga seet def yaama neex jox keneen ku yées nee na ku def loolu war nga yàlla waliyadillah war nga yonenteem waaye war nga jullit yi nga yi la dénk seen mbir ngay doxaleen nu ma neex bokk na ci dawaabit yi ci war a def politique mooy na doon ku maandu ku sàmm man santaram nee na maa min waalin yali raiyatan min almuslimin fa yamuutu wa huwa gaashin lahum illa harrama allahu alayhi janna nee na amul benn ku yàlla teg sa loxo nguur nga yor mbiri jullit yi yor seen leen sàmm waaye nga sàmm leen ba noppi doon leen wor doon leen nax mais la nga war a doxal doo ko doxale na war a doxale boo dee day na la leer ne yàlla araama na ci yow janna waxaat na ne ma min abdin istaraahu llahu raiyatan fa lam yaxutha bi nusxin illa lam yajid raihata aljanna amul benn jaam bu yàlla di dénk ak njaboot ba noppi yàlla dénk la ko nga bañ leen a taxawee la ca war ci sàmm leen ci aar leen ci xool laay biire leen la gën nga leen cee teg bu la boo ko defee bañ a bañ leen a sàmm bu boobaa nee na boo faatoo xeetu àjjana sax du la xeeñ waliyasu billah loolu imam Buxaari nett na ko fi saxihi de imam Buxaari nett na fi saxihi ci jëri ci Abu Bakar Abu Hurayra mu ne yéen santaram nee na ida duyiat al amaana fantadri saa wala ya rasulullah wa ma idaatuha mu ne ida wusida al amru ila gayri ahlihi fantadri saa mu ne kóllëre buñ ko sànkee baye boo nga xam ne addunaa ngi bëgg a tub ñu ne ko luy sànk kóllëre mooy nga dénk mbir ku ko yëlloowul nee na bu loolu amee day jàppal ne addunaa ngi bëgg a tub moo tax suñ tubaa ci jawhar na fi bi muy wax ci jëflante nguur tam wax dafa ne mudaaratuhum laakin mudaaratuhum qad nudibat dama bi natin hadisin xattabat waaye ba muy wax dafa ne walam tajus illa li aalimin samul qad kaana za adaat wal jam kon kuy dugg ci jëflante nguur da ngaa war a doon nit ku maandu ku am wara ku mat sëkk waaye boo amee ak doyadi ci sa doxi wala ci say jikko wala ci sa psychologie ni ko li gën mooy nga bañ a dugg ci yëfi mbooloo bi noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi waxoon beneen bi it loo xamee ne lislaam buppaliwu koog yeneen ñëpp mooy bañ a sàkku nguur dañ ko sàkku waaye ñuy xool lu ne ña yilif te gis ne la gën fii ñoo ko gën a yeyoo ñu seet ña gën a am compétence jox la ko waaye ngir bi du ku ne day wat rek da koy laaj loolu nag xam naa ne ci système bu islam bu dëgg la mën a amee waaye ci suñ système yi mun koy am ñoom santaram nee na Abu Saïd Abdurahman ibnu Samrata dafa ne yoon santaram dafa ne ko bul laaj nguur ndax bu boo ko laajee te buñ la ko joxee te laajoo ko yàlla mi la ko jox moo la cay jàppale moo la ciy dimbale waaye boo ko jëlee sa bopp noonu rek dañ lay bàyyi ak moom muy sa responsabilité boo ca juumee ëllëg ñu ci saa rek waaw nee na ci Abu Dar boobu sax yenn saa dafa ne ko nguur kóllëre leen amaana bu la yàlla dénk leen te yowmal xiyaam toroxtaange la fay doon akuk rëccu nga lu dul ku ko jël ci ak xam mooy yeyoo ko ko jël wa adda bi xaqihi wa adda alladi alayhi fiiha mu def ca it la ko war ku ko defewul noonu rek toroxtaange lay doon yowmal xiyaam ak gàcca ga kon yooyu ay dawaabit yoo xamee ne l'islam tegal na ko kuy doxal nguur na ko bàyyi xel bu nekkut yow moytu ko te xam ne ñu koy saasaram rek ak nadaama lay doon ëllëg yomal xeema xam naa wax nañu ma waxtu wi jeex na mu def nag namasi ji ak nataay ji namasi ji naa ci tudd rek yonent saa sallam moom doy na sëkk laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waaye yàlla indi nañ ci alquran ne yaa daawuda innaa jaalnaaka xalifa am na ko yàlla dénkoon suuf dénkoon nguur muy daawuda mën nañ ci indi daawuda suleymaan musa taalut ak sayyidina muhammad yaa daawuda innaa jaalnaaka xalifatan mooy yow daawuda yàlla laa dénk nguur li tax ma dénk la ko nag mooy faxkum bayna naasi bil xaq mooy di àtte nit ñi te teg ko ci dëgg wala tattabi hawa fa yudillaka an sabilillah bul topp sa bakkat ci ni ngay doxale nguur kon foofu li ñu fi yàlla bëgg a jàngal mooy nguur pour mu tegu ci lislaam mooy faaw mu tegu ci dëgg du tegu ci yaama neex bànneex ak parparloo ndax nee na ku ko teg ci bànneex ku topp bànneex da ngay sori yoon bi yàlla rëdd inna fa yadillaka an sabilillah te ku sori yoon bi yàlla rëdd inna alladina yadilluuna an sabilillah lahum adabun shadid mbugal rek lañ ciy jële bi maa nasuwul nakaat kon foofu misaal namusa bi ñuy indil mooy namusa daawut da daan atte nit ñi ci dëgg sori tamit bànneexam Seydina Muhammad buñ ci ñëwee moom la yàlla wax ne inaata naaka shahidan mubashiran wa nadiran wa daa'iyan lillahi bi ismihi wa siraajan muniran siraajan muniran la mooy làmp bi ñuy leeral ñun jullit yi waxaat ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mooy suñu roy waay te lim ko tagge mooy laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum yan saa salaam mbiri mbooloo mi da ko da koy céedoon lool mooy azizun alayhi ma anittum lu leen naqari lu leen di lor lu leen di gaañ dafa day da koy metti lool xarisun aleykum bu xër ci seen i intérêt luy tax ngeen ngeen jàkk seen mbir jàkk seen mbir baax loolu buñ moom ne ruufu ndax ni boole ci am ñeewante ci nit lii lañ soxla ci ab kuy kuy politique mooy azizun alayhi ma anitum lu leen di naqari naqari ko lu leen laal laal ko harisun aleykum xër ci lu lay luy defar société bi bu noppi am ñeewante ñoom ak yërmande looloo tax lu ko dal ci coona dem bëjëm ci geer toj bopp ba def lu ne ngir rek du moom ay mbiram baax waaye pour société bi baax pour umma bi jàkk pour sax yéebari sax jàkk ñëpp ñoo ñoo ko taxoon a sonn ci coono yooyu la nekk nag ba indi orienté nit ñi teg leen ci siraatal mustaqim da tabax al madina al fadila muy société idéale muy société ba mu taxawal ca Madina nga xamee ne yahud yeeg ñëpp ñoo fa nekkoon mu defal leen constitution boo xamee ne ak ñëpp la garanti indi nguur boo xamee ne ci bayan lay taxaw dañuy def élection élection mooy nit ñi ñooy tànnal seen bopp bayan indi nguur boo xamee ne ci suuraa dañuy diisoo ba li gën ñu def ko ñu def ko wa amrum suuraa baynahum indi nguur goo xam ne day tegu ci ay valeurs yi diine valeurs yi yàlla jàngale waa nax bu mbay bi ma anzal allah ci li yàlla atte indi ci lay ci lay atte woo indi nguur goo xamee ne ci justice ak maandute ci lay taxaw indi nguur goo xamee ne mbaax ngëneel la indi ba tax yàlla wax ci ne ko kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas kon xam naa li def ci waxtu wi jeex na am na nag namazij yi nga xamee ne jëguñu mooy modèle yoo xamee ne yàlla bëgg ko boo leen xoolee xeet yi fi xeet yi fi jiitu woon yépp ak civilisation yi yàlla alak yépp booy xool nañ daan doxalee ci siyaasa ci li ñëpp bokk rek moo ko moo bonoon doxin wu bon wuñ doon dox rek moo tax yàlla bugal leen moo tax yàlla alak leen dalee ko ca firawna aat tabuut mad asaabu madian asaabul ayka ñu ñëpp laay da ngay gis jikko inoo kaana aliyan min al mufsidin musrifin zalimin taxa ila firawna innahu taxa ay jikko la ñuy wan yoo xamee ne day yàq doxiinu mbooloo day yàq pour rek ma bañ a dugg ci détails yi kon loolu mooy namasi yi nga xam ne baaxut ay modèles yu bon yu jubati yu daan tooñ yu maanduwut yu daan jalgate yooyu léegi nag buñ appliqué li l'islam bëgg ñu doxee ko ci siyaasa lan la ñuy indil mooy saada saari ni mooy laay bi ma doon wax léegi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen ba ko yéen san salam jëfandikoo ak i saaba lam leen indil mooy yéenay société bi gën bu nit masaam ndax ci maandute ci jub ci mbaax ci yërmande ci jàppalante ci lépp lu ñu bëgg yéen yéen a ko mel ndax da ngeen di taamuroona bil maaruf kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuroona bil maaruf wa tanhawna anil munkar da ngeen digle lu baax ñu tere lu bon gëm yàlla yéen ku def loolu mooy man amila saalihan min dakarin aw unsaa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayaatan tayyibatan wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani jazaa kanu ya'maluun sa adduna day jag sa laaxira day jag mooy hayaatan tayyiba li ci gën a neex nag mooy yàlla da lay defal tamkiin wal istixlaaf fil ardi wa'ada allahu alladina aamanu minkum wa amilu saalihat la yastaxlifannahum fil ardi kama staxlafa alladina min qablihim mooy yàlla ku doxalee noonu dana la dëgëral moo moo la dig ne de dana danaa la jàppale danaa la def nga wuutuma ci kaw suuf ni ma ñeneen ñi wuute woon danaa la dëgëral dëgëral sa diine danaa fexe ba lépp ngeen am sécurité at amu min juin wa amanu min xawfin wala yubaddilanu am min ba'di xawfi moo am nan ngeen am sécurité am jëm kanam ya'buduni laa shukr bi ba noppi ngeen may jaamu te doo leen bokkaale waxaat na ci alquran ne ci ñu am loolu mu ne wa laqad katabna fi zaburin ba'di dikri anna al arda yarisuha ibadi salihun kon waxaat na ne tilka daaru laaxirati naj'aluha lilladina laa yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin kon loolu ñu ragal yàlla tënku ci yoon woowu yàlla indi la koy yàlla may muy saadatu daare ni dund gu gën a baax kon yàlla ñu ko yàlla defal defal ko Sénégal bañ jëm kanam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh